ëllëg ñamay sédd duma xam seen santu baay c'est très important yàlla nee na ëllëg ña sédd duma xam seen santu baay ndax ida nufixa fi suur fala ansaaba baynahum id wala yatasaalun ne kon nag la may sédd ba sédd ko ca xol ba lay ne moo tax koo gënul xol mënuloo koo gën ci leneen kon nag li ngeen war a def mooy li leen seen góor gi yóbbante woon wax ko mam moo loo lay dellu si réew maa ngi jëm fu nga xam ni jamono jëm fu nga xam ni lu ngeen xentewul lu dul xol bu sell dingeen ngeen tooñ seen bopp na ngeen sellal seen xol te muy dëgg ci yéen du maa leen ko wax bu ngeen ko defee waxtu wii déwén dina am lu xew waxuma ko nag ci yi nit ñi fokk ci yàlla teg leen loxo laa wax booboo tax may wax waaw yadullahi fawqa aydihim waxin la kooku garanti mag la nga tax na kon nag li ngeen di bàyyi xel rek mooy def leen seen liggéey jàng leen seen jàng

yéen daal nekk leen fi ngeen waree ne buñ leen ne ay ngeen ne ay waaye ngeen am wóolu nag ni incha allahu duñ leen dugal ci kàmb li ci des nag pas de commentaire noonu la toll pas de commentaire ah ci lu ngeen ne lu ngeen di bëgg a def nangam nangam seen yoon benn responsable lu daayira bi ñëw na bërki dem di ma tàggu pour voyage bu mu war a dem ni ma gis nga senegal kenn xamul réew lan la mu ni ma bërki dem bu benn ponkal di responsable di kilifaak dara jàmm ma toog rek mu téléphoné ma ni ma dama la soxla nee na maa naan kii lu may war a doyawaay nee na mu ñëw ni déret dugg sama biir bureau nee na nuyoog man jàmmanteeg man ba noppi ni ko waaye est-ce li xew yëg nga ko nee ma ne ko ci lu mel nan nee na mu ne ma est-ce que yëg nga ni Moustapha Sy dugal na ay armes yu dul jeex ci dëkk bi nee na waa Moustarchidine nañu xaar bu ñu wooree rek dana jàpp bés bu ko defee kenn ku nekk région ba mu ne fa ngay commencer di raafale di ñëw nee na ma air bu sérieux bi ma koy waxe nee na mu wax ba noppi ma di ko xool ba ci ak ma ni teqat ndax nee ma ne nag bu fekkee ni ñi ñu yilif ñëpp nii la mel ak ku yóbbu bàyyi ku yóbbu bàyyi mais man Sénégal ma def fi li ma bëgg a def dafa laaj may dem di gi jëliyaar ma soxlawu ma sama loxo biir rek barke yonent bi laa wax dama ko sax qu'est-ce ci des mooy ñi nekk ci armée yëpp sama njaboot lañu man la ñuy déglu lu may wutee ci arme et puis c'est tout kon kay loo koy doye tal ñi jang barke yonent bi lol latal ngeen jang ngeen bax waye itam nag ci biir jang meeg mbaax mi nak ku dem bëgg len xatal nag ah bo ba ñu sakki pex ki nak mom ñun sunu farata la ku dem ba seen jang ñu bëgg ko xajamal seen mbaax ñu bëgg ko xajamal ñu bëgg xajamal diine ci bu boba nak lolu c'est notre affaire kooku nag noonu duñ ko saraanaan lii la ak laa la loolu c'est notre affaire et puis c'est tout waaw soo defee rek noonu la demee bu leen commenté lu diw wax lu diw waxu ak lu tax ñu wax kook dem na fii ak dem na fa seen yoon newu ci ñun lu mën a doon buñ ko waree régler fii vingt quatre heures doy na ci ñu régler ko kon nag ngeen continuer rek jàpp seen jàpp te ngeen bay bàyyente xel te ngeen bañ dugg ci lu seen yoon newul te rek ngeen gën a góorlu ndax seen kilifa la mu war a sonn yëpp sonn na ko sonn na ba sonn lu mag ñi sonnul te maa ko wax te yàlla nag ku sonn dina laa añal bis te añ ba waxuma la Sénégal waaye àdduna yëpp xaj na ca kon nag buñ ko yàkkamti ñu ko déglu rek bàyyi ko mu nekk ci la mu moom ñu nit ñu nekk ci li ñu moom in tansurullaha nag yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ñu ngi sant sunu wayjur yu baax yi